asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di bu baax di leen ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activé cloche bi gars yi bu leen ko di fàtte jëlee like loole nag dañ koy def benn ponk ci li nga xam ne mooy soxal CAN Côte d'Ivoire 2023 coach bi nga xam ne d'origine algérienne la xam ngeen ne Algérie ak Maroc c'est une longue histoire jàpp leen bu baax moom même yëkkati woon ay kàddu yu ñagaskat teg ko ci waa Maroc en conférence de presse mu nekkat Maroc kat wala. li nga xam ne moom lañ bëgg kaaf kat noonee dong de lay doxalee kon ñoom ñaar kat voilà nag réerewuñu waaye ci noonee kaaf nag mu woolu ko ci commission disciplinaire bi ginnaaw bañ mënee ay enquête moom mbir mu uyoo ci Adel Amrouche kon moom kat teg nañ ko huit mois yi nga xam ne kat maytuñ ko mu toog ci benn ban loolee dafay signifié kat kon ci kan dafa war a ay bagages am pays bi moom la yoroon muy Tanzanie ñoom kat xaar ñu benn yoon ñu génn benn communiqué kat voilà fësal ne kat nañ ko kon jàpp leen moom kat. na la quitté foofee ca Côte d'Ivoire ek ñu tegal ko ci huit mois yi nga xam ne du ci toog may ñu ko mu toog benn baawu club. ñu wéyale xibaar ci luy soxal kaan bi kon moom meen mooy Mo Salah xam ngeen ne seen joor bu ñu amal contre Ghana dafa amee woon gaañu gaañu loolee mooy tax mu génn kon dañ dañuy fësal ci këru xibaar mooy que ischio-jambier nag la amee problème kon voilà dina raté nag bu sukkandikoo ci këyit xibaar yi ñaari match yu wa Égypte en cas de qualification ci huitième de finale kon quart de finale dong de la mën a jiwante bu sukkandikoo ci RMC Sport. li nga xam ne moom mooy euh, groupe euh, B bi doon nañ wéyale seen ay jogante cet après-midi ci noo ne Cap Vert moo kaw Mozambique 1 euh, bi wala boog 3 bi à 0 nag moo leen may ñoom ñooy doon pays bi nga mu ñoo njëkk a ci li mooy stade de huitième de aussi ce qu'il mooy que première coup franc kan bi gis nañ ko ko dugal nag mooy Natango Pathé Ciss ba nga xam ne ma ngay dox ci Rayo Vallecano mu iwoo ci bébé ñaareelu jiwante bi Sénégal jaar ci kaw Cameroun comme niñ ko gisee 3 buts à 1 voilà duel entre Lions match bi nga xam ne ñoo bëri jàpp nañ depuis le début de cette CAN nag mooy match bi ci gën a neex. waaye laata ñu ñëw ci jiwante boobee voilà il faut que ñu saluer sant travail bi Aliou Cissé mu ngi koy mënee avec des choix forts voilà ci 11 de départ bi Edouard Mendy sur les camps Abdoulaye Diallo compagnie de Kalidou Koulibaly. Ismail, euh, autant pour moi, Ismail Diago comme latéral gauche aujourd'hui aussi Kerepetian joué comme latéral de métier qui est lié droit au bi dinañ ci ñëw Sadio Mané ci couloir gauche bi Ismaïla Sarr à ca kaw ñu doxal ek nag ci ndorteelu match bi voilà nag xar kanam bi nga ne moom lañ doon xaar wane nañ ko mettez la pression sur les. sur les Camerounais voilà nag ay ka jàpp leen sax euh, ñu teg li nga mooy système 4-3-3 au lieu que 3 bi nga moom lañ tegoon contre Gambie kon ki nga mooy Aliou Cissé voilà mi ngi varié li nga mooy ay système de jeu par rapport à l'adversaire vraiment c'est important nga def ay jàngat et que aussi. il faut saluer la fédération bi ñu ngi teg Aliou Cissé dans de bonnes conditions et que ñu boole ko ak ay techniciens lu ci mën Pape Diaw voilà. technicien 100% local et que vraiment ça fait plaisir et ci ndotteel bi nag voilà la pression loolee moo ñu may bi nekk seen santé Lamine Camara bi nga xam ne kat liñ ko fi indi benn jour bi nga xam ne non seulement dafay dugal sur des sur des longue distance cette fois ci sur des balles moom mooy centré voilà nag loolee mooy permet Ismaïla Sarr bi nga xam ne voilà nag dafa soxloon bi bi nekk en confiance mu lakk caax yi à minute nga jàppale signifique mooy que Aliou Cissé maîtriser bien li ngeen mooy match bi et que on avait le contrôle euh, sur le milieu avec le duo des jeunes yi nga xam ne mooy Pape Matar Sarr Lamine Camara kii nga xam ne aussi mooy Pape Gueye vraiment volume du jeu impressionnant du joueur bu Marseille bi nga xam ne voilà toog na 4 mois waaye taxu ko benn yoon il est frais que mooy moom mi ngi montré kat liggéey bu mucc ayib et que loolee ci kan bi ek nag euh, li nga xam ne moom lañu sole mooy Krépin Diatta ci couloir wala voilà nag euh, ñu vraiment jouer un rôle bu am solo kat ñu fermer les couloirs bu ko defee kat Cambérène mu mën ko bañ a exploiter ak euh, sans oublier ki ngeen mooy. un certain Ismaël Jacob waaye aussi que dire de Ismaël Sarr bi am un jeu de couloir xam ngeen ne système bi ñu tegoon mooy que 3-4-3 du ci gis boppam ci noonee kat voilà il a été un peu gêné mais cette fois-ci il est libéré avec système 4-3-3 Nacho comme ni nga waxee si avec son expérience il a su kon li ñu mooy que kat voilà match yi amoon na tension bi nga xam ne voilà voilà c'était élevé physiquement de même que. tactiquement waaye Aliou Cissé était au-dessus les lions indomptables comme ni ngeen koy dëppalee ñoom nañu ci jafe-jafe comme ni ko song fësale mooy que voilà dañ doon jàmmal équipe bi nga xam ne mooy ñu doole mu di Sénégal. ki nga xam ne moom mooy euh, Benjamin Mukajo mu yegg moom mu dooli leen si ne kat mënoo jouer équipe mu mën ne Sénégal nga naan kat da ngay bàyyi ba quatre-vingts minutes yi naan da ngay wane sa bopp voilà il fallait réagir waaye kat la réaction des Camerounais dafa tardé jàpp leen bu baax ki nga ne mooy Habib Diallo bi nga xam ne voilà na ci joŋante bi un peu un peu inexistant mais à un moment donné il fallait bi nga xam ne voilà dina ko mettre dans la partie et que nga xam mooy Sadio Mané mooy te jàngi comme ni ngay waxee mu dugal un but somptueux passe décisive de Gana Gueye voilà liñ mën a mooy que collectivement l'équipe a été au top et que Ismaïla Sarr gi jonte bi ginnaaw gi biom boobu ak passe décisive moom lañ tabb man of the match mooy que joueur bi gën a xarañ ci bi voilà comme ni ngay wax mooy que trophée boobee mooy que raay bi nga xam loolee voilà nag dina ko may confiance ndax eh, doon nañ dal ci kaw bu baax ba équipe vraiment c'est normal connaissant niveau bi nga xam ne moom la am voilà il faut il peut montrer plus ak jiwante bi wane na fi nga xam ne ñu bëri fa lañ ko doon xaare nag eh, ci li nga xam ne mooy ñaareelu jiwante bi kon Guinée moom mooy jaar ci kaw Gambie 1 bi à 0 kon mathématiquement nag eh, Guinée qualifié na ndax pour rappel ci CAN bi dafa am 4 meilleurs troisième kon luñ mën a mooy que Guinée. làq na 4 points am kon ma rappel situation bu groupe A Sénégal première 6 points plus 5 Guinée deuxième 4 points et que Cameroun moom kat moom mooy euh, troisième avec un point mooy deux vraiment ça sera compliqué pour les lions indomptables ndax faw ñu daan Gambie score bu yaa lool bu ko defee ñu mën a espérer bokk ci meilleur troisième yi bu fekkee Gambie nag mën naa ne aussi voilà quatre-vingt-dix pour cent ils sont éliminés ginnaaw gi bañ amee ñaari défaite zéro point mooy quatre au programme bu suba bi voilà ci groupe D bi ñoo koy tàmbali le choc entre Algérie et Burkina Faso à partir de 14h GMT ñaareelu waxtu bi Mauritanie Angola 17 lañ koy tàmbali et ñu jeexalee ko Tunisie ak Mali à partir de 20h GMT. comme ni nga ko waxee dinañ ci ñëwaat ci milieu bi nga xam ne voilà nag euh, avec la Guinée sous commande Pape Gueye Ismaïla Sarr un certain Lamine Camara. li nga xam ne daan nañ ko décrier bu baax baax mooy Carlisle dañ daan tegal benn meilleur défensif waaye cette fois ci gis nañ benn meilleure joueuse ndax quoi qu'on dise on avait des joueurs bi nga xam ne très technique ko ci mën a Pape Matar bi nga xam ne forme bi mu bàyyi ca Tottenham moom la indaale ci tanière bi naam blessé woon na waaye aussi voilà gagné na li nga xam mooy place am ci tanière bi c'était Pape Gueye bi nga xam ne vraiment fraîchement la ñëwee ndax ginnaaw bi moom toogee 4 mois bankul ay loxoom. dafa dem futti futteeku volaat di liggéey bu baax a baax loolee la indaale ci tañeer bi Lamine Camara moom kenn du ko présenté ti ci équipe nationale locale bi ba ci u bi xam nañ ko bu baax a baax li nga xam ne manqué woon nañ ko mooy que ku ñuy defar tir à distance ku prend des initiatives et moom loo lay doxalee. les balles arrêtées nga seetee la Camara voilà mën na ko bu baax a baax et que boo seetloo ci premier bi bi sax moo dóor corner bi may Ismaïla Sarr mu njëkk lakk caax yi kon nu ñu koy wax mooy que la zone soo commande et que ça continue voilà benn volume de jeu bu énorme lañ am et que à certain sax gis ngeen ki mooy Lamine Camara dafa dem ba cramp loolee mooy tax gànn kay jël place am. aussi lu ñu solee mooy esprit groupe bi nga xam ne gis nañ ko ci tanière bi ku dugal dafay daw ci banc bi loolu li muy fi ne mooy Aliou Cissé aussi def liggéey na ci bi mi ngi man ni yaa nekk ci biir pour réussir que jàppalante boobee indi maanaam bañ indi benn soxla seen diggante lu rëy la aussi jën jeexalte voilà peut être ñu bëri seetlu nañ ko Sadio Mané ba mu dugalee li nga mooy bii di break troisième bi bi dafa dem directement dëjjeeku un certain Cheikh Kouyaté xam ngeen li ko waral mooy que voilà dafa ñàkk wéy juróom bu góoram mu ñëwaat ci tanière bi waaye lu ci mënti am ba am mooy que jour expérimenté yooyu ci ban bi et que voilà ñuy seen ay rakk ndax comme ni ko Aliou Cissé waxee lenn dong moo ñor moo jub foofu ca Côte d'Ivoire man ko uti ndam li et que voilà cette match yëpp lañ bëgg a jogante ba final gàddu ko indi ko ci réew mi comme ni ko Pape Matar si Pape Matar Sarr yëkkatee à toute fin de rencontre kon ma ne foofee ji leen jaajëfal ba beneen yoon sur le sport 221 ñu félicité suñu gaynde bu baax a di leen encourage ñu continuer si yoon bii. dem ba ci final bi gàddu raay bi